julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñoo ngi nuyu mbokk yi yépp ci nuyoo islaam moo di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di àndaat ak yéen ci jotaayu koor ci Hann TV di nuyu mbokk yu koy yi ñuy topp ci jotaayu koor ñépp di ñaan yàlla yàlla yàlla nangul suñuy koor nangul leen suñuy koor nuyu ñi nekk ci réew mi ak ñi ne ci diaspora bi bitim réew topp waxtaan bi eh, di leen sant di leen gërëm bu baax di fàttaliwaat bu baax a baax ñoo ngi ci weer wu barkeel weer wu tedd weeru xéewal weeru yërmande weeru tuub jéggale ay bàkkaar xam naa sax ci tuub boobu tey incha allahu rabbi danañ ci ñëw mbokk jullit yi dafa am xibaar gu màgg dafa am njàngale gu rëy goo xamante ni xewoon na yonent bi sallallahu alayhi wa daal di koy xamal dafa baaxoo su fekkee ne mi ngi waxtaan mu daal di ñu indil ko li ñu tuddee turbine bu ndaw mu daal di ci yéeg taxaw jàkkaarloog mbooloo mi waxtaan ak ñoom euh, mu daal di woote nag ne na ñu indi turbine bi buñ ko indee dañu turbine daal di teg bi mu teg bu ñu tegee turbine bi ñu daal di gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yéegukaay la bi muy yéeg ci première teg pas bu njëkk bi muy teg muy te teg tànkam ñu dégg kàddu gu ñu musta dégg ci yonent bi ñu dégg yonent bi daal di neex amin mu tegaat ñaareelu pa ñu déggaat yonent bi sallallahu alayhi wa ci làmminam bu tedd bi mu ne amin mu tegaat ñetteelu pa bi mu tegaatee daal di wax amin mu daal di waxtaan ba noppi bi mu noppee saxaaba yi comme dégg nañ la nga xam ni mooy ñi ànd ak moom ña nga xam ni moo leen yaroon saxaaba yu tedd yooyu soo déggee ñu ne la saxaaba soo ko déggee mooy ka nga xam ni dund na ak yonent bi te bi mu duddee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama da ngay gis ne gëmoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duggoon na ci diine islam te gis na yonent bi kooku la ñu tuddee saxaaba ñoom ñoo nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi daal di laaj yonent bi na yonent yi ñun dégg nañ ci yow laqad samicna minka al yawma lam nasmaahu min qabl dégg nañ kàddu goo xam ni mësuñu ko dégg nga koy def daan nga ñëw rek yéeg daal di waxtaan ba noppi dem mais tey dégg nañ nga ne amin amin amin ba muy ñetti yoon amin nag soo ko déggee mooy yàlla na soo jàngee fatiha sax miin nañ ko ba noppi ànd ak nag ñu xam ne bokkut ci fatiha mais soo jàngee fatiha ba noppi da ngay gis ne dangay wax ne amin amin mooy ñaan gi nga ñaan ci fatihatul kitab yàlla na yàlla nangul ma sama ñaan mooy allahumma stajib amin mooy mooy yal na yàlla nangul ma sama ñaan ñu ne yonent bi mus ñoo dégg loolu ci yow waaye tey dégg nañ ko yonent bi ne waaw laataa ma yéeg benn euh, maanaam bi may teg sama tànk jibril dafa daal di ñëw <coughs> jibril nag soo ko déggee mooy malaaka goo xam ni moo gën a màgg ci malaaka yi li yàlla waroon yóndi mu yegg ci yonent yi ci moom lay jaar moom jibril alayhi salaam moom moo koy jële ci suñu borom subhanahu wa taala wàccee ko ci yonent yi mooy malaaka wu gën a tedd ci malaaka yi te kenn ku nekk xam na ne malaaka boobu lu mu ñaan suñu borom da koy nangu ñu bàyyi ci xel xamaale na tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ne amin suñu borom du ko delloo ñu bàyyaat ne xel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci place boobu mu doon ñaanee moo di ci jàkkam ji madinatul munawwar jàkk ju tedd ji fu mu doon taxaw di waxtaan di delloo nit ñi ci yàlla di xamal ni ñi seen diine place boobu loo fa ñaan sama borom yàlla da koy nangu kon nag ñetti mbir yooyu daje nañ ci ñaan yi mu ne nag bi muy laata yéeg la jibril daal di ñëw ne ko ba bauda man adraka ramadana falam yughfar la ne sori na jibril mooy wax ne sori na yërmande sa sa borom yàlla wala sori na mande ka nga xam ni weeru koor teru na ba weer wi daal di yàlla jéggalu ci si ay bàkkaaram kooku moom perte na mu ne kooku perte yàlla na yàlla yàlla na kooku perte yonent bi ne amiin yàlla nangu na ñaan boobu boobu benn la ñaareel bi mu ne bauda man adraka abawayhi falam yudxilaahu ljanna nee na perte na ka nga xamante ne nii dund na ak ay ñaari waajuram fexul fexewul ba làq seeni ngërëm ba ñu génn àddina te dugaluñ ko àjjana maanaam amul ngërëm seen ngërëm ba dugg àjjana kooku tamit perte na dinañ ci ñëw ci point ñaari point yi yëpp daan ci ñëw yonent bi neel amin yonent bi ne amin yàlla nangu na ñaan bi beneen ñaan bi mooy ñetteel bi mu ne bauda man samia man zukira man zukirta indahu man zukirta indahu fa lam yusalli alayka sori na ka nga xamante ni nii dégg nañu ne yonent bi muhammad te waxul sallallahu alayhi wa sallam kooku tamit sori na yërmande yàlla maanaam ñetti ñii ñetti amin yi yonent bi daal dina ko tudd ka nga xamante ni nii weeru koor teru na ba weer wi génn fexewul jëf ci jëf ba yàlla suñu borom gërëm ko jéggal ko ay bàkkaaram sori na ka nga xamante ni nii dafa dund ak ay ñaar ñaari waajuram wala benn waajuram fexewul ba làkk seeni ngërëm ba fexe ba jëf-jëf ja nga xam ne dana ko duggal àjjana ci ñoom yonent bi ne amin sori na yërmande yàlla yàlla bu yàlla yërëm moy ka nga xamanteni ni dafa deg turu yonent yàlla muhammad te waxul sallallahu alayhi wa sallam kon ñetti moy ña nga xamanteni ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy yek neena amin amin ku njëkk ba dañ ci ñëw moy ka nga xamanteni ni yërmande suñu borom subhanahu wa taala ci wëru koor gi xamna ñu wëru koor gi yëpp yërmande la waxon nañ la wëru koor gi ci tero suñu borom dafa daa ubbi buntu aljana yëpp wëru wi تي القران دا فا واخني سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض والارض اعدت للمتقين القران دا فا واخني غاو لين لاغ لين داو لين جيم تي يرماند سونو بروم سبحانه وتعالى يرماند بوبو موي نجهغلو يالا غوغو نانيو داو نيون نييب ني اوتكو نانيو تاروخلو نانيو سيبورو نانيو خاران تي سونو بروم سبحانه وتعالى تي وير وي بكار بو مونونو جيف bakkar bi ak num mënta mel bu dul bàkkaar suñu borom même bokale bi su fekke ne tuub goko bay goko yàlla jéggal na lako mais amul bakkar bu nit ki mën jëf lulul suñu borom subhanahu wa taala dana lako jéggal sa alquran di wax ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru dhunuba jamia yen ñi nga xamanteni ni da ngeen nuru ci bakkar tak ci ripax yen ñi nga xamanteni ni da ngeen dem ba nagu jàpp ne yàlla du len jéggal seen bakkar nee na bu leen mus a naago bu leen mus a dem ba nga xamante ni taq laa taqnatu min rahmatillah bu leen yaakaar ne suñu borom du leen jéggal yàlla da leen jéggal inna allah yaghfiru dunuba jamia kon nag wa tuubu ila allahi jamia ayyuha almuminuuna laallakum tuflihun gaaw leen ngeen tuub jëm ci suñu borom subhanahu wa taala tuub nag alquran comme ni ko waxee wala borom xam-xam ko jàngalee soo tuubee tuub mooy lan bàkkaar bii de rëccu naa ko maa ko defoon dootuma ci dellu te li sama dund damay yiwalal baye bakkar bi moom dootama ci delu yene ko sa xol kooku ku tup tup gu melni suñu borom jéggal na la say bakkar jéggal na la ko te lu gina yéme moy yàlla su la jéggalé sa bakkar dala ci day manam bakkar suñu nekkon témèr day jël témèr yiw dindi bàkkaar remplacer fa ay yiw koku suñu borom rek moko ko mun moo sax yàlla bi muy wax fale ne wala yaqtuluna an-nafs allati bi muy wax fale ci jaam yu baxi yi wala wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq wala yaznuun ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ña xamanteni ni ñu bax lañ mu ne ñooñu duñu ñu rey bakkan ñooñu du ñu njaaloo mu ne ku jëf-jëf yi da nga dajak sa borom ëllëg dana la mbugal mbugal gu tar maanaam ku rey bakkan mbaa ñu ku def njaaloo mu ne nag lu dul ñu tuub ku tuuboon defoon yib ñaawteef yi soo tuubee tuub bu sell yàlla nee na ku tuub gëm yàlla di jëfaat jëf yu baax ma remplacer ko musiba yi mu jëfoon yépp defaat ko ko mu doon yiw kon kooku benn la képp koo xamante ni nii weeru koor teru na na gaaw mu tuub delluwaat suñu borom subhanahu wa taala ndax xamoo ne ndax weeru koor dana la fi fekkaat nañu tuub ñun ñëpp delluwaat ci suñu borom subhanahu wa taala bakkaar yi bari nañ lool kii wax ak ñii déglu ñun ñëpp nañu delluwaat yàlla ñoo ngi lay tuubal di jéggaluwaat suñu bakkaar yu ñu yëg ak yu ñu yëgul yu ñu jiital ak yi mujj yi nëbb ak yu feeñ yu ñu tey ak yu ñu teyut yëpp suñu borom ñoo ngi lay jéggalu yàlla nag ñu jéggal suñuy yàlla yàlla jéggal ñu ci bi barke weeru koor gi alhamdulillahi rabbil alamin kon ñu teg foofu ànd ak yéen Hann TV incha allahu rabbi سنيو جتاي جي نيو ان شاء الله جتاي كور السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته